lébu bu ah? ma may jën. ah. musuma ma may jën. ah lébu ñoo may jën ah. man daa mel ne am ma lébu abu. ndeysaan mais mais xoolal ma lii. mais mën naa maam yaatu. maam ñaaw. ah waaye sinam na Alioune Seye jëlal ma loolu. sinam na ko. ñaari Alioune Seye. waaw ah, ñaari Alioune Seye. ndeysaan. maa ngi sekk ngoog. mais maa ngi sekk lu ñu cey maaji maaji ah. yaa ngi aj bu jël bu nekk ci kaw maaji ah. lii lan la maaji maaji ah. ndeysaan Lamine ngoog la nag Abu Lamine wéet la jàmbaar la non Lamine jàmbaar la Lamine der la mi ngi jaante si booy Balla Gaye Guédiawaye ñëpp bokk na ñëpp bokk bàyyi c'est vrai Lamine Golo waalo Balla Gaye yor ma xool ko ci biir cumbukaay waalo yi li saf saf non mooy yoon. mais li ma image man li laa bëgg. mais même Tëngéej sax ñëw nañ mais ñoom a bokk ndey ñoo bokk baay. ñëpp a ñëw. Yoof ak Bargny ak Ngor bu ñëwee fii ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. mais moo tax làmb koñ ak koñ la. quatrième combat baa ngi nii. non tey dara du yomb. kii may Mamor. waaw Mamor bu Faas. borom jibi cëri bi. sama waa sama waa ji am nga combat de. Diallo baa ngi ndeysaan njaago bi daa daan ñu dansé nag njaago baa ngoog njaago bi doomu géej a way la waaw ndeysaan mi ngi noonu nekk école bu Fadam ah waaw Mamor doomu Faas la nekk ikiri Faas ndeysaan ndeysaan bëre amuur la quoi. amuur la mais lii da dara gënu koo métti. bala ngaa xam ne moo métti nga ñëw fii. dëgg lii amuur bu baax. moo tax ku si nekk rek nga war a jàppale. waaw yal na leen yàlla dooleel. kortaana leen. mooy yoon kaay toog. kaay toog. kaay toog. waaw. daka nee na ma jox ma sama seet seet bu ne armel ya siège bi yàgg na fi de. waaw waaw non siège a ngay sax na si jàpp waaw taxaw bi du neex. Modou Anta. ah. Lores Ndiago bi. kan la Lores. kan Laurent. Lores guy gi. guy gi waaw. bi mu fi mujj boog yéen kaw loon combat bu métti yàgg. combat waaw waaw combat bu métti métti sax. ca match nul. dëgg la. Mamor bi mu fi mujj moom a Thiatou Walo la woon. waaw Mamor waaw. daa pertoon combat boobu. mais ah, avant ah, waaw kay. kële kële kële bi mu fi mujj nu mu kumbo de. am na ku mu daan koo xamante ne ci biir walisam. Ah? am na ku daan ci walisam ci palmarèsam. koo xamante ni mooy afisam damay fàtte mbër mi léegi. Pokola Balde Pokola merci daan Pokola rek laa la bëggoon a xamu. mbër nga. moo daan Pokola moo daan Thiatou Montagne. merci ma ne ko xaaral commande ñëw moom day tiiloo. dëgg la moom yàlla mooy may ñoonu ah. loolu kenn ku nekk dina yàlla may. naanaan la de. jinne guy gi jinne waaye ki muy bëreel. waaye moo daan dañoo waaye moo daanoon Kumba Gawlo. moo tax ma ne gars yi Saalum moo daanoon Siteu bu Saalum. dégg nga ko. champion la ci wàllu lam moo daanoon Boy Sil bu Falaay Balde. manqué wuñ dara dañuy paal lii. moo daanoon Lengs bu Falaay Balde. dégg nga ko. parmaresam léegi laa koy lim ba si yàgg ma ne leen xaareen commanda ñëw waaye état physique yaa gën a lépp moo ko na ko mais daan na koo xamante ne si biir palmarès am moom rek doy na te gis nga ko bi nga ñëwee da nga ne Pokola rek waaw amateur yi ñoom ñi seetaan dinañ xam ne Pokola rek doy na affiche doy na doy way bële maa daan Pokola kon bu ñëwee si Mamor joxul cër mën na kaa defara mais Mamor liggéeyaat na si diggante bi rek Siteu bu Saloum waaw Siteu dafa taxawoon ah. mais dafa gën a moom Siteu boo xamante day song waaw bébé guy gi bàyyi xew nag. jaaykatu yàpp it kenn du ko wax ndaa néew doole. ñu munul paase ngay jaay yàpp ñu ne la da ngaa néew doole. wallaahi ndeysaan. lekk yàpp jaay ñu ne la da ngaa yooy. a ak ngay jaay yàpp ñu ne la da ngaa néew doole. amul fenn. waaw maa la wax loolu. ak ngay jaay jën ñu ne sa cin saful. te booy bi. Mamor le Tigir. bébé guy gi. arbitre baa ngi leen di xool. ñëwal ñëwal mu am ñëwal. même bi drapeau la ko xalaat gi may takkal. mooy yoon moom bébé guy gi. waaw jël bee rëy. na de. dafa am problème bu ma kii dafa am problème mu ndikk kële dafa mel ne dama ko ragalee problème mu ndikk. Malick Ngom a waaw. li lamb nangoo bañ Mamor les Tigil. dëgg la guy gi école de lutte Mor amoo la ñu woon ginnaaw ñu koy laaj consulté na ay juge ndax pare nañ nee nañ ko waaw Sitor nee la waaw Bébé Gouy Gui Mamar arbitre sifflé na combat bi mën naa gaaw mënu anta pied gauche pied droit wara wada ma ke war ma dem gantali war mbaam lu waay doon jaay tey mu lamb lambaloog arbitre ni mu def ah, day door waaye day song bëggul door bi Mamma tànk yi la soxla bëggul door bi tànk yi la soxla tànk yi. ñax ma ni teel nañoo jàppante. teel nañoo jàppante. parce que xeex bi awul yoon. parce que Mamor bëggutoon kii da ko bëgg na paqueté. dama kii dee rëpp na bañ na. waaw li nga yooru du yoon. action boobu dinañ ci dellu si waat eh guy na Mamor yaa war a téye avant bu dal de bu dal na téye avant bara bi moo gën lii mu téye parce que bu roccee gis nga ko door na bu roccee day boo téye avant bara bi du buus du naas waaw même bu dul loolu sax du am doole lool dana ko ba tey guy gi lan nga jël baax na fàq na ko fàq na ko wóolu na ko da koy war ndomba war na ko ndomba daan na ko tax appui leer na. guy la un point. njaago ba waaw ndeysaan la wax loolu. booy soqeeku nañ. Lares am na ndam. njaago bi a daan na Mamor. ñaan naa la maa daan Pokola. waxoon naa la daan na ci champion bi. daan am teg soog. la wax loolu. walaay mbër la. Mamor fi mu doon toj Gaaja Ba. moo daanoon R5. kooku dafa am R5. waay kii. maa ko xam ko xel. mbar la daa mën a bëree ko de daa noppi rek. mais ndaanaan la. mu daan mën a bëree. mu daan mën a bëree xam nga kii. nee naa njaago këla kës la njaago këla kës njaago njaago yooyu seen xeex du ko wax seen fukki mu ngeen di xeex fekk bàyyi woo te daa mobiliser sax jëloo ma mbooloo mi waaw non tey jëloo na dugg ci géew bi wax loolu daa ba ñu soqee victoire pour géej way ay doole neexu da yëkkati de doole nii yow mii li ngay def jéngu ma marqué na première point c'est que a yëkkati doole mais Ndiaga Dolé diis na de. ndeysaan. Bébé Gouy am na ndam. ci kaw Mame Mar bu wax naa métti de. dafay baax de. ndeysaan sooy benn waaye moo indi ndox mi. doyal xol bi. ndeysaan. di door ba si yàgg wu ne la naan leen. ah waaw dafay baax de. barke yonent bi tey lamb neex na. jëlal ma Ndiaga Dolé. jëlal ma Ndiaga. Ndiaga ngi de. ak aw neexum fecc waaw pop pop pop animé la man njaga moo xeex indépendant ba nekk mbër di dugg dafa def leen di bëre di teg ba ñëw bëre da ngay am jom am fulla